dama gis yenn booy ah, yoo xamante ni chaque jour dañuy bëgg di bëgg ak yow chaque jour bu ñuy bëgg di bëgg ak danaa dañ ma jox Papa Boy Djiné ba di ci laaxaale sax sëy ndey yi mën naa ci lim ñu bari mën naa ci lim sax génnee kenn muy alliance bale ndax bëgg dem seetaan seeti naa ko nee na bu bëree ba bàyyi te bëriwul ak yow même boo bàyyi woon sax force da ngeen di bëree lan mooy seen problème yow ak ñoom ak ndéygee lan mooy problème su fekkee man nag dama laa jox cër yow. Mhm. j'ai beaucoup de jox naa la cër. te cër bi ma la jox nii yaakaar naa ne interview bi nekk nañ ci di wax presque lu ma deux semaines wala trois semaines. yàlla dogal tey la koy soog a sottil man nag dafa am yenn gens yoo xam ne yàlla dafa dogal man du ma communiquer si ñoom parce que yàlla dogal na man li may wax tey suba moom lay wax man nekkuma doomu aadama boo xam damay wax lii tey suba mu wax lee tey non non man gëwma loolu kon man du ma tontante koo xam ne tey day wax lii tey suba mu wax la man gëwma loolu. kon su ma soñoon question bi nga xam ne moom nga wax nga zappe ko dugg si leneen parce que du man ak ñoom ñoom du ñu mënta man duma ma ñoom li nekk sama loos nekkul seen loos kon su may tontek ne damay tontek too tontek koo xam ne tey jii nii am na ñu ko naw wala am na ñu ko fonk wala ñu ko respecté parce que doomu aadama loolu di wax tooñ baaxul te yàlla buggul kuy tooñ rawatina nag ngay tooñ koo xam ne ëppoo ko doole. boo ko fit gënoo ko ñeme su la woowee allo foo nekk doo ko wax foo nekk su la waxee kaañ daje doo nangu ngeen gisee suñ la dekkee micro ngay wax si moom man kooku du mu mën a tontu si moom est-ce que nga fi ma waxee man li may wax nii nag en direct laa koy wax nii te li may wax nii àdduna yëpp dañ koy seetaan man damay bëgg di jëflante koo xam ne carrément su waxee dara day assumer ay responsabilités du si ragal dara. ki ngay wax sorante wuñ man ak moom fi mu dëkk ak fi ma dëkk. man du ma tontonteeg kooku ngay wax si ay internet. yéen ñaar dafa am jot a xew seen. diggante dara du dox suñu diggante man ak moom te dara du mës a dox suñu diggante. kon bu ñu andiloon avance doo ko jël. non c'est que déggoo li ma wax yàlla mooy dogal. yàlla nag bu dogalee si musaa fay mee di dem te nanguloo ko dangay sonn yàlla bu dogalee ci Tapha li ko yàlla may te nanguwoo ko dangay sonn maa ko ëpp ay défaite moo ma ëpp ay victoire waaye bëréewuma ak moom parce que man su may bëri damay bëri dégg damay bëri koo xam ne sax la maximum nit ñi respecté nañ la war jox nañ la cër parce que doomu aadama cër yaa koy incarner sa bopp doomu aadama da ngay fonk sa bopp d'abord ñu fonk la mais tey boo xëyee yaa ngi ci Moussa ginnaaw suba yaa ngi ci Demba ginnaaw suba yaa ngi ci keneen chaque jour ci détail détail détail détail détail détail da ngay jéem a xool li nga bëgg yow nga nekk ci loolu nga bàyyi wax ci làmb kum la nga bëre ak moom yow su fekkee da bëgg a bëre demal nga wuti promoteur bu mën a fay papa mu ñëw bëreeg yow ak ku mën a doon waxuma si kenn rek de man mbër bu bëgg a bëreeg man demal nga wuti promoteur bu ñëwee fay ma lu ma bëgg ma bëreeg yow parce que man mbër laa te may liggéey xaalis laa bëgg comprendre fi ma waxee mais ay détails wax fii wax fële loolu góor moomu ko góor moomul loolu man barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wal kitaabi man ku mu mën a doon ku yàlla bind koo xam ne nasu nga yor suñu borom sàq la su ma demee ba ñemee taxaw wax si yow ba jaar sa tur barki xaadimul Mustafa ak fu ñu mënti dem ma ak yow su fekkee li ma wax ko assumer sama papa mu jur yàlla naa ci gën wax laa wax looloo waral nag man du dugg si kenn du ma tooñ kenn du ma waxu jàmbur du ma dugg lu sama yoonul nekk maa ngi toog jàpp sama coin jàpp sama ñàmbur. entraînement ñëw toog suñu kër su ma amee sama soxla dem doxi ji ko samay soxla bopp dem doxi ji ko ñaa toog jàpp sama ñaambur